mbër maa ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw bu ñu la baaloo ak si weeru gi. waaw Bokar maa lay nuyu maa lay ziar bu baax waa di nuyu mbokku internet yi seeraan li yëpp xam nga di nuyu tamit diaspora bi yëpp. waaw di ñaan yàlla xam nga koor gi yàlla nañ ci dugg ci jàmm génn ci alhamdulilah rabbil alamin di ñaan yàlla nangul suñu koor xam nga di di la remercier bu baax a baax di nuyu ñëpp xam nga waaw di ziar ñëpp di nuyu sama waa koñ bu baax a baax waaw. tey musique pour ñu la xamul wala ñu lay gis boo ñu bëggoon wax kan mooy musique. waaw musique benn ndaw la rek bu dëkk diggante maanaam mën naa ne diggante Caaroy Géejawaay laa dëkk tëli bi leen séparé fa laa dëkk mais écurie Papa laa nekk Géejawaay la nekk quoi. waaw Géejawaay laa nekk waaw dix neuf waaw la la quatorze avril deux mille dix neuf si combat Laay Pythagore ak ñax jariñu waaw maa bëre cinquième combat bi jour boobu boobu laa bëre sama premier combat waaw boobu léegi xam ma ne ci yoon bi yàlla def ma am cinq combat xam nga cinq victoire yàlla waaw du suñu du suñu du suñu kii njàmbaarte nag lépp ndimbalu suñu borom la rek yàlla moo ñu dimbali xam nga ñu nekk ci li ñu war a nekk rek yàlla duñu suturaal ñuy bëri di daan. macha allah am na solo mais lu la dugal ci làmb. waa làmb passion la rek mën naa ne passion la rek xam nga tamit nekkoon nekkaloon fi ak ñoo xamante ne sama grand yoo xam ne dañ daan nekk fii di bëre di bërentu xam ma daan ànd ak ñoom xam nga des fois xam nga ma ñëw ànd ak ñoom takk ngemb xam nga des fois di bërentu noonu noonu rek ba affaire bi dugg ma nag après nag xam nga par la suite ci laa gëm ne xam lamb ji war naa ci mën a am dara quoi parce que même bu dul dara lamb sama passion la comprendre nga loolu moo tax quoi. jour bi nga njëkkee takk ngemb lan yëg la woon nga njëkk takk ngemb mu ñëw biir stade. waaw am gëm-gëm ne damaa war a rek waaw loolu laa gëmoon quoi damaa am gëm-gëm ne damaa war a nekk waaw takk ngemb moom suñu passion la kon bu ñu def xam ak plaisir lañ koy def waaw parce que loo xam ne dañ nit li ñuy wax rek booy def loo moom ak waaw day neex quoi parce que loolu lu ñu bëgg la suñu passion la quoi moo tax ñun moom mooy loolu. waaw sa premier combat yokkan la woon. man ak Cité bu Grand Dakar Cité 2 bu Grand Dakar. waaw combat jamaïcain la woon yaakaar naa lamb jamaïcain la woon quoi le 14 avril 2019. waaw 2019 nga laa dugg si lamb laa laa sama premier combat quoi. nga dugg après ma bëre ak euh, Africa Pub. Africa Pub jour combat Jackson ak Pape Ndoye. ci laa bëre ak Africa Pub maa bëre deuxième combat bi daan ko waaw. nga jóge si moom nga jóge si ma jóge si moom jox ma Thio Karbala. Thio Karbala jour ak euh, ak Youssou Ndour waaw jour boobu lañ bëri jour boobu laa bëri sama troisième combat Iba waaw sama trois premier laa ko bëree. après ñu jox ma Mbaye Niang Mbaye Niang lañ ma jox Mbaye Niang bu parcelle jour combat kii la Dior ak Zëm waaw ci maa bëri septième combat bi jour boobu xam nga yàlla defal ñu ndam. nga jóge foofu dafa mel ni sa combat bi mujj spécial nga bëri. waaw spécial laa bëree man ak Tigo la woon Tigo xaritu yaayam le 8 mars bii passé quoi waaw. waaw journée Ousin production. Mm-hmm. moo tax waaw ah. waaw. loolu moom yaakaar naa ne palmarès bu riche allah cinq co cinq victoire euh, lafcat la ñuy wax jafe-jafe yi mbër bu ndaw lan lay nekk. non bu war jafe-jafe mbër bu ndaw bu ñu koy lim fi la ñuy fanaan. Hmm. xam nga li may wax rek chaque fois sama gars yi maanaam mbëru yeneen gox yi dàqu ñu gënu ñoo ñeme lu xotteeku ñoo ñeme mais xam nga jàppale bi mooy problème bi. tamit xam nga ñu dëgg gox waaw ñu dëgg gox boo xamante ne xam ma jàppale bi ci làmb demeewul noonu quoi xam

problème mu billet dañ koy am dañuy dem làmb di bëre ji suñu supporters yu bari fi lañ leen di bàyyi parce que amuñu billet yi ñu leen jox comprendre parce que li ñuy wax rek li mbëri di wax dëgg la autorités yi nekk ci gox yi jàppale wuñ ni jox jàppale wuñ mbëri yi nekk ci kaw la jàppale mais boo nekkee waaw mais boo nekkee mbëru ndaw pour ñu jàppale la c'est tout problème léegi mbër yi mag yi la ñuy obligé jàppale pour am si yenn notoriété ñu leen di tudd xam nga loolu métti na mais suñu gëm-gëm rek dañoo gëm ni dañoo gëm ni lam dañ ci am dara te dañ ci dañ ci war a wane suñu bopp loolu la rek. si autorité yi laa ñëwaat rek gis nañ jamono jamono yi tamit coow li bëri na diggante autorité yi ak mbër ñu ne ñu ngi jël mbër yi di leen di fay ñu nekk ay nervi ñu ngi jël ay mbër di leen di fay ñuy recruter ay ay loolu boo koy dégg en tant que mbër lan lay def. non loolu moom mbër yi si dugg dañ koo xamul rek manaam gis en général nag Boucar boo xoolee ñi ñuy wax ay nervi yëpp en général ñu si bëri duñu ay mbër quoi dañuy yor ay ay bras yu rëy rek xam nga ñu tuddee leen ay mbër mais man comme mbër bu ñu ràññee nii ñu ràññee mbër nga gis ko nii nii mu def nerf bi yombul de waaw wax dëgg yàlla te loolu moom wax dëgg yàlla ñun amuñu ñun suñu bopp lañ gëm quoi ñun moom bu fekkee loolu moo ñu may xam naa ne duñu am quoi dem di xeexal nit moom sa ay ñu nekkuñu si détail yooyu waaw ñun moom a ah, booy la ñuy topp quoi ñun moom sama gars yi laay topp xam amul problème mais la reste moom dem di def ay nerf ak yooyu yooyu moom

comprendre kon ñi si kaw dañ ma war a may loxo bëreeg man quoi au moins quoi xam nga parce que def nañ tamit suñu preuve cinq combats cinq victoire tamit xam nga si ndimbalu suñu borom daal mais daal def nañ suñu preuve ku daan Tigo Tigo douze quatorze combats lam douze victoire bu ma koy jël fii ñu bëri gëmuñ ne mën naa ko daan xam nga ma dem liggéey waaj ak samay mbokk xam nga sama gars yi jàpp si ma di ñu dem bëre ma daan ko avec la manière maa Tigo bëriwuñ xam nga au moins xam nga comme tey au moins war nañu mën a sax bëreeg xam nga ñii si kaw tuuti quoi ñu may ñu chance bëri ak ñun quoi yee mais suñu morom am yoo xam dañ ko hmm. waaw man bébé maa moom dama may sax ñu bëre combat la. Tafa Mbër waaw bébé bëgg na Tafa Mbër. ñu may chance qualifié qualifié numéro 2. nañ def benn benn bébé Diène. waaw est-ce que xam-xam nga bébé Diène bi xamul làmb rek damaa xam ni sama naataangoo la ñu war a mën a bëri rek. yow di Sénégal la de. waaw mais loolu dara loolu dara dañ koy yàlla loolu jikko rek mais ñun suñ bopp lañ gëm quoi. te gàkku waaw gàkku suñu grand la ñu ngi koy ñaanal jàmm waa bëri naa gàkku xam nga waaw ak lamb ji résultat lamb ji xam nga waaw mais daal bëgg nañ mu may ñu chance ñu bëre ak moom. su bébé jën boo ko jëloon sa grand bi nu mu tudd sax kii Ndiaye Ndiaye nu mu tudd. Ibu Ndiaye grand Ibu Ndiaye dina ko delloo. <laughs> non non yow man delloo avance bi. yow man xale laa man xale laa li ñu wax rek ah, sama benn grand moo doon mu ne ma mbër bu matee 80 kilos amul ku mënta daan ci lamb ji comprendre nga ñun bu ñu demee bay xalaat di war nañ mën a daan ko wala mënuñu ko daan nañ bàyyi bëre quoi vraiment ñun am suñu morom bu ñu mën a daan ci làmb. Hmm. yee ragaluñu loolu sax. Tapha Mbeur da nga koy dama koy ñaan sens Tapha Mbeur moom xam nga. Hmm. dégg naa ko nag mu ne du bëre du bëre du bëre xale mag lay bëreel mais nag xam nga dañ koy ñaan sax suñu garaaw bu baax la vraiment hmm. borom baax la tamit xam nga ñu koy ñaan sens xam nga bu ñu mënee may sens ñu bëre ak moom quoi. mais Colifay 2 moom làmb moo moo ñu boole moom parce que moom Tigo da koo daan. waaw Tigo bëriwul moom sax une minute te man damaa jàpp daan ko waaw ma daan tigoo kon tey loolu logique la waaw dañoo war a bëree logique la waaw. Tarkindaa bu ñuul. waaw non ragaluñu loolu. ñun attan nga coowam. non ñun moom amuñ dara lu ñu ragal ci làmb ma la lu ñuy ragal ci làmb moom ak keneen ak keneen ñoo ci am ñun amuñu lu ñuy ragal ci làmb mbër bu am coow ak bu ñàkk coow lañ ci yemale. waaw Talfa tamit man ak moom combat la moom cinq combat la am loolu combat jànq waaw combat. Talfa wëral adversaire ba ba ah man de maa ngi fi moom buñ ma seetsee moom ñu waxtaan moom incha allah waxe samay kilifa moom man pare naa pour bëre moom quoi parce que cinq combats am cinq moom la nag dañ koy ñaanal jàmm mais mbër bu mel ni Tigo daanul mbër laa daan comprendre la comme bu neex la moom bu ñu bëree dina neex torop quoi champion day wàcc si mbapat yi de waaw kon noonu la loolu dara loolu ak làmb ñoo ànd xam nga ku nekk da ngay nekk ci li nga nekk rek waaw mais ñun moom wax dëgg yàlla amul mbër bu ñu mën a daan ci làmb quoi bu ñu demee bay xalaat daan mbër moom yàlla. Mbacké Faye moom naa combat bu neex la mais kon sa papa moo koy yàq. waaw Mbacké loo xam ne dañ ko bokk te mënuñu koo séddoo moom moom mooy loolu Mbacké moom borom baax la ma koy ñaanal jàmm waaw papa moom dama koy sant bu baax kooku sama papa la waaw gis naa coono mi da ci man sonn ci man trop mën naa ne euh, li ma réccu mooy li ma ko yéex a xam quoi mais wax dëgg yàlla contribuer na sama carrière wax dëgg yàlla toog na ma ay combat bii passé ba muy bëri Tigo teg na ma ay coono yu métti avant muy voyager comprendre nga tey am na loo xamante ni mënu ma ko quoi sama diggante man ak papa am na yoo xam ne ah xaju si sax quoi waaw yee am na daal doo mën a bëri Mbacke non Mbacke moom ah man wax dëgg yàlla moom ah, ah papa daal laa xam lu ma koy def quoi yee ah. papa moom ñu koy waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax papa ñu de passage papa Ndiaye ah, borom borom États-Unis di a baax a baax léegi bu dul ñooñu promoteur yow daal tu es ouvert kon. man moom sa waay man pare naa pour ñëpp quoi li wax rek bu ma daanee Tigo am na ñoo xamante ne war naa mën a bëre ñoom waaw Tigo ko am na mbër yoo xamante ne moom wax dëgg yàlla buñ moom nanguloo man nag ah peut la quoi mais ëppale wuñu ma dara ci làmb quoi. Yoff kan moo fay sa adversaire. Yoff ah sama adversaire foofu isa amul combat. Caatu Ngéwél am daa mel am na combat de. Caatu Ngéwél am na combat waaw am na combat. Diin bu Yoff amul combat. waaw Diin man a Diin combat bu neex la Diin moom pare naa pour bëre Diin moom bu ñu ma fayoon dërëm mën naa bëre ak moom. Ah. waaw. noo bëgg a wane dama bëgg a wane sama boobu ci Diin waaw. Diin moom wax dëgg yàlla man ak moom combat bu neex la. Gaynde mer la fanaanoo de. non loolu dara. Géeja waay day gën a mer rek bu ñëwee après day gën a mer incha allahu rabi waaw sama waaw hmm. combat la pare nañ pour ñëpp pare nañ pour ñëpp amuñu dara luñ ci xalaat pare nañ pour ñëpp waaw ñun ay mbër lañ ay xale lañ. non Jacob Baldé waxoo si Jacob de. non combat la Jacob man ak neex la waaw géejewaay la dugg day ñëwaat géejewaay après dajaat fa mel noonu rek incha allahu rabi. duggoon na géejewaay de. la fa daj. moom papa booy ji non combat waaw mais combat mujj géejewaay la mujjee de. waaw suñu grand digal moo ko daan xam nga bu ñëwee incha dañuy jaarat foofu rek ci kàttanu yàlla waaw incha allahu rabi. yaakaar naa ne budul ñooñu Fass kan ma fay sa adversaire. Fass ah Fass Pam Ndoye xam naa ne Pam Ndoye moo fay sama adversaire quoi mais xam naa ne moom. mooy loolu duñ nangoo may benn booy chance mais moom xam naa ne moom incha allah fii ak maa fi moom tôt ou tard na ñoo boole quoi champion la nag mais tôt ou tard na ñoo boole incha allah rabbi. bien. Balla war a bëri ak Eumeu Sène combat bi taxawaat pour une troisième fois est-ce que xel dal waaw ñun ngay représenté xam nga te Guédiawaye Balla Gaye maanaam li ñuy wax rek làmb boo ne woon boo nee tey comme ni nga naan Messi ci ci ci football bi moom Messi la ci làmb quoi. champion la dañ koy ñaanal yàlla may ko mu yeggali carrière am ak jàmm combat bi mu jëm yàlla defal ko ci ndam incha allah rabbi loolu lañ koy ñaanal waaw incha allah. loolu dal na ci combat waaw dal bu baax a baax Balla Gaye amul leneen lu koy tëral ci làmb. waaw kooku Messi la amul dara lu ñu koy ko jàmm rek yàlla defal ko ndam mais mais ndam mbiru suñu borom la wax dëgg yàlla Balla Gaye moom du bëre waa géej waaye di xalaat wala ñuy tiit déedéet parce que même bu dul dara victoire bu nekk indi na ko waa géej waaye quoi wax dëgg yàlla def na lépp ci làmb xëy na peut-être lu mu def defet la rek comprendre nga mais moom amul dara moom wàccoon naag waa li gars yi di wax lekk rek la deful mbër lekk mbër rek la defalul gars yi xam nga kooku moom dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm borom baax la vraiment xam nga koy ñaanal yàlla may ko gudd fan a wér mu yëgale carrière am si jàmm lu mu sumb yàlla suñu borom defal ko si ndam incha allah rabbi loolu lañ koy ñaanal. dégg nga kon nee na ay combat yi muy ñàkk ci loolu. waaw loolu loolu am na si loolu am na si parce que champion bu doon la Eumeu Sène booy bëre moom foog nga respecté ko parce que même bu la champion la Balla Gaye mu jox mbër bu mu jox la mën mbër bu mu

waaw jàppuma nag fan yi quoi mais war naa jour yëpp quoi. waaw war naa jour yëpp waaw. am na euh, ci bëggoon a yokk rek laata nga tàggatoo. waaw xam nga di di wax autorité yi ñëw gën see jàpp. wax dëgg yàlla parce que xam nga na quoi am combat dañuy mais nag yàlla mu ñu dimbal di ñu boole ay nit yoo xamante ni xam ñu ñuy jàppale ku ci mel ni président Ousmane Bopp borom g de d moom gis nañ xam nga ni mu ñuy taxawoo gis nañ tamit ni muy taxawoo jeunesse ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla développement bii mu sumb xam nga yàlla na koy yàlla motali xam nga di sant tamit Gorika Goripor sama père maa ngi koy sant bu baax gis naa ni muy jàppee ci affaire yi jàpp na ji bu baax waaw grand Moro Moro Balde maa ngi koy sant bu baax moom tamit day jàpp ci affaire yi xam nga di sant gars yi ma jàppale ak sama gars yi ñoom ñëpp gis naa xam nga nu ñu may taxawoo sama waa koñ nag oo ma seen fay sama grand yi fii ñoo fàtte mais dafa moom xam nga foog ma sant leen muy Ibu Joola ak Laat xam nga ak góoraloo Baye Góoro borom Mbuur maa a baax xam nga parce que loo xam nga foog ma sant ko waaw sama grand yi ñoom Alek ñoom Modou xam nga Njool baagari xam nga fii gars yëpp sama booy ñoom taal ak ñoom Aliou Ndiaye maam xam nga gars yi mafia café gi waa axlu bi yëpp xam nga boo limee rek jum mais ñëpp maa leen di sant gis naa taxawaay gis naa moomee combat xam nga ñu ci daj gis naa niñ ciy sonnee xam nga ñun nag yàllaa ko yor mais lépp kon nag autorité gi aussi a jàpp ku si mel ni DG Lat Diop DG Lonase ku si mel ni Ahmed Aïdara ba si Aliou Sall sax pourquoi pas autorité yi nekk géej waaye parce que ñoom dañ leen fay teg comme mais tey mën naa ne ñoom peut-être mbër yi ne ci kaw la jàppale mbër yi nga xam ne dañoo am tour pour am ci notoriété xam nga pour nit ñu leen dégg ci kaw mais ñun maanaam li ñuy wax rek jàppale mbër bu jàppale ci mbër bu ndaw la la neexee fa la méttee nag mais fa la neexee comprendre nga mais ñu ñëw gën ee jàpp xam nga gën cee dugal seen loxo incha allahu rabbi guy gi laa ci wóolu guy gi ak monument bi Lirou Diane yaakaar naa ñaar ñooñu moom ñaar ñooñu moom xam naa lu bari mën naa ne sama combat mën

ñoom dañoo war a taxaw si jàppale ñu jàppale mbëri ndaw yi te moom mi ngi ciy bay waaram bu baax a baax xam nga di wax gars yi ñu gën cee jàpp vraiment parce que laamu mbër bu ndaw dafa métti waaw ñun bu ko defee coono daj. boo xamoon sax kenn mënu la wax. comprendre nga dafa métti trop trop mais nag dara ñun moom dañoo am suñu gëm-gëm rek heure bu ñu wàccee si làmb dinañ nit ñi dinañ xam ne am na lu ñu bëgg am na lu ñu gëm waaw même bu ñu génnee benn topp ñu sax ñu war a dañ koy def war gars yi dañoo war Talfa dégg naa waa jàmbaar ñu ngi koy utal combat nañ ma seet si ma jël ko bilaay walaay incha allahu rabbi ma xam ne man ak gars yi du ñu benn. li muy def ma li muy def gars yi laa la bis ma ko defee. loxo dar gémmiñ barki sëñ Bamba. ma ne moom laa soxla. Thiel Gandalu de. ma ne li muy def gars yi laa bu ma ko defee loxo dar gémmiñ. waaw gis nga keroog ni mu def booy eh, loolu dara loolu dara ci làmb dégg naa jàmbaar ñu ngi koy utal combat man pare naa waaw buñ ma buñ ma ñëwee seet si ma incha ma bëre ak moom amul benn problème waaw na jël combat bi ñu bëre waaw loolu mooy dëgg parce que combat jànq la cinq combat la am def fi lu ñu deful cinq combat la am xam nga ku nekk cinq victoire kon dafa war sixième bi dafa war a foog am ko waaw ko xaar quoi incha allahu rabbi nañu jël ñu bëree. mais aussi bac plus 3 nekk mbër tey ku la jeunesse sax Pape Malick Ndour tey yaakaar naa ñooñu tey sa genre gi lañ soxla ay jeunes yoo xamante ni tey mën nañ ay avenir lañ parce que mbër bu def cinq combats cinq victoire nekk un jeune am bac plus 3 yaakaar naa ne am na ay potentiel. waaw wax dëgg yàlla jàng nañ quoi. waaw instant yi naa ne dañ ko stand by ndax xam nga làmb ji mais jàng nañ xam nga yàlla dimbali nañu am nañ benn niveau intellectuel yoo xam nga dañuy wax autorités yi ñu ñëw gën cee jàpp parce que mbër en dehors làmb sax mën nañ leen jariñ ci leneen comprendre nga moo tax ñu war ñoo war ñoo approché war ñoo jàppale mën naa ne tey ñun pour ñu am accès si ñoom du yomb mais xam naa ne peut-être bu ñu gisee message bi ñuy lancé xam nga mën nañ mën nañ leen jëriñ maanaam si beneen loolu la ñuy wax waaw bu loolu weesoo bu war foog ma sant sama benn grand serre borom Christina médical maa koy sant bu baax a baax a baax grand serre sonn na ci affaire yi bu baax a baax su ma amee combat xaaj bi yëkkati xaaj bu bëri jox ma moom ak moom ak rakam Omar maa leen sant bu baax a baax a baax waaw loolu daal waa incha allah rabbi. ba léegi rek ñu yaakaar naa Allé Allé ziar maa ngi leen di jàlloo ziar bu baax a baax di am kontaan ak mbégte bu baax a baax bi ngeen ñëwee fii euh, Géejawaay seet si sunu booy bu yaru bi muy Moustique 2 Euh, bu ngeen ko invité nag euh, te waxuñu si rek duñu gor quoi wax dëgg yàlla ndax mbër la boo xamante ne nii mbër bu baax la mbër bu yaru la mbër boo xamante ne nii la nekk ak ay euh, bëgg ñëpp am yar am teggin ba pare wax dëgg yàlla nekk champion quoi lépp lu ñuy wër ci champion mu moom macha allah di wax rek yi ñi koy teggi dañoo ñu war a ñëw war a ñëw bëreeg moom. parce que la te xam naa ne wax dëgg yàlla képp koo xamante ne nii lekk nga avance xam ne am nga mbër te promoteur tamit bu baax a baax wax dëgg yàlla parce que saa yu génnee minam génn géejawaay génn wax dëgg dafa am ñaar public parce que fii mooy nekk frontière diggante Guédiawaye ak Thiaroye moom wax dëgg yàlla champion la quoi macha allah. Mm-hmm. kon conseil yi ak kaddu ñaax yi si li ko dese si carrière am lan lay nekk. waa li ma koy wax rek moom mu ngi ci daanaka parce que wax dëgg yàlla mbër la quoi te athlète la lépp lu ñuy wër ci mbër mu ngi ci moom. sérieux na day teel a tëdd am na yar am na teggin am na disipline wax dëgg yàlla euh, bañ la wax yi ñuy conseillé mbër naa demal entraîné ji. kenn du ko conseil wax dëgg yàlla parce que ku gëm muy def la ngi entraîner tous les jours day récupérer aussi en plus tamit li li ñuy li ñuy gàkkale mbër yi nekku wax dëgg yàlla xam ñu ñoo nekk moom chaque jour fa ñu fekk ñu toog ñoo toog moom chaque jour kenn xamu ko ci affaire yu jigéenantu comme ñu yàq carrière mbër en général xamul ay foo xamul caaxaan entraînement

mu ngi ci mu ngi mu ngi fi ñu ko fi ñu ko teg mu ngi fa quoi doxul taxawaaluwul heure boo ñëwee këram fekk ko fa lu taxawaalu demul fenn entraînement mooy mooy mooy mooy passion comme ni ma la ko waxee tey jeune la boo xamante ne tey yàlla xam na ne tey ku ñëpp war a jàppale la quoi parce que étudiant la am bac plus 3 gis jël làmb rek mu nekk passion mu bàyyi jàng bàyyi léppam topp làmb. bac plus 3 eh, bac plus 3 la am intellectuel la mu ne moom làmb mooy passion bàyyi lépp topp làmb da ci xare ba egg fii xoolal booy bi nu am 3 combats xam ku daan kii Tigo kooku du ay caaxaan. cinq combats cinq victoire daan Tigo daan ay naataangoom te képp ku ñu ko jox rek ñaan kii da koy rey tey parce que na du mbër ba koo xoolee kanam bi kanam bi dafa xaw a kii quoi. mais aussi dégg naa aussi mu naan yàlla ku jox cër mbër yëpp la na Reug Reug trop parce que dafa yàgg topp Reug yàgg koo bëgg yàgg ko voilà est-ce que comprendre nga mais tamit wax dëgg yàlla ku jox cër mbëru géejawaay yi la macha allah euh, parce chaque jour ñooy toog di waxtaan dañuy werante ci làmb lu bare bare bare mais wax dëgg yàlla ku dund làmb la te léppam làmb la mooy suñu yaakaar wax dëgg yàlla mooy suñu Balla Gaye te xam naa ne fi Balla Gaye géejawaay incha allahu bi moom laa gis ci géej waaye koo xamante ne nii moom mun a euh, yeggali mission Balla Gaye parce que mu ngi ci te am na taxawaay bi am na gëm-gëm bi am na fulla bi am na fayda bi ñu daal lañ koy ñaan rek te tamit di ko gën a ñaax mu gën a fonk li mu nekk nii mu bañ si jóg gën ko yokku incha allahu rabbi yàlla dina ko jàppale quoi macha allah.